asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu noo ngi nuyu mbokk yëpp di leen ziar di leen ndokkeel ci xew-xew bu mag bi nga xam ne dëkk mën nañ ko ñu di ko wax màggalu Poroxaan Poroxaan nag di dëkk boo xam ne dëkk bu làmbooy mbóot la dëkk bu làmbooy leer dëkk bu làmboo barke tur wi ñu tibbee ko ci alquran ndax daañu fa fekk saar woo xam ne suuratul furqaan la tudd tàmbale ci tabaraka alladi nazzala alfurqaana ala abdihi li yakuna lil aalamina nadira dëkk boo xam ne nekk fële ci Saalum tabarakallahu ba li waral bis bu màgg bañ fay amal sax muy soxna su tedd soxna soo xam ne tabarakallahu la ko fa yóbbu mooy topp ndigal borom këram ak jihaar ci yoon yàlla ndax xam nañ ne dëkk la boo xam ne mbakke gi ak mbuso bi barakallahu yàgg nañ fa waaw bu ñu xoolee soxna Jaara mi nga xam ne mi ngi gane woon jamono ci 1833 génn àdduna foofee ca Poroxaan ca 1866 euh, loolu bokk na ci cosaanal dëkk ba bokk na ci li waral bis màgg boobee wala sax moom moo ko waral li waraloon ñi dem fa nag histoire nettali na ci lu yaatu mooy almaam yi ku ñuy wax sëriñ ku ñuy wax cheikh Muhammad ibnu Njoogu Ba ñu gën koo siiwe ci Maba Jaxu Ba nga xam ne mi ngi gën a jamono 1809 génn àdduna doon jihaad jihaatam yu yaatu yu kawe yooyee tàmbale woon ko ca 1862 ba bi muy génn àdduna muy 1867 tabaarakallaahu mu àndoon ko nag ak waa mi ñëpp lu mel ni jolof kajoor bawal saalum bokkoon ci ñi gënoon a fës ca ñam àndloo nag mooy nijaaye Serigne Touba jooju ñuy wax Mouhamad Bousso ñu gënoon ko siiwee ci Serigne Bousso bi nga xam ne moom moo nekkoon ab qaadiyam moo ko doon ateel ndax it boo dee liggéeyal diine du ñàkk nga wut koo xam ne léppam diine la ku nit ñi xam te naw ko la teg ko ci sa wet moo tax almaam yi defoon noonu ne tabarakallahu waaye mbokk ma it Saa Bousso waa ak way juru Cheikh Ahmad Bamba muy sëriñ Mamour Anta Sali nga xam ne moom ab jàngalekat la waaw eh, ak ñu baree bari ñoo xam ne àndoon na ak ñoom ci jihaad boobu ci tënk rek waaye eh, Maba Jaxu Ba bi mu woowee magi mi ca xeex boobee nga xam ne képp ku amutoon ngant rungu na la yóbbu ca eh, Saalum ngir ñu ànd xeex ba mu ñu xoolee ca 1865 ci la dikk moom Mamor Anta Sali ca Poroxaan moom nag ba mu dikkee dafa sampoon daara di jàngale alquran ca foofee nga xam ne mooy Poroxaan waaye nag Maba Jaxu Ba moo ko fa joxoon li waral loolu mooy ba Maba Jaxu Ba indee nit ñi foofee ca Saalum euh, wala ba leen di indi foofee ca Saalum dafa romb ci maami euh, ki nga xam ne mooy a cheikh walidul walid mooy maam Balla Aïcha Mbàkke ma ba jox jox ba jaaree fekk boobu moom euh, xawoon naa kawe ci ay at ndax boobu war naa yegg ci quatre-vingt-dix ans moom ko bëgg a yóbbu nag mu xamal ko ne ko boobu nag mu ngi woon signé mu ci wetu Saalum ak Bawal boobu moo waa këram ci lañ nekk moom euh, moom mam Balla moom nag nekkoon kilifa gu mag a mag a mag mu nekkoon nag comme mage mënumaa dem. waaye bàyyil ma boole ak sama doom ji nga xam ne mooy mooy Mouhamad Mbacke nga xam ne euh, moom moo nekkoon foofa ba Minanul Baaxil Xadim nettali na ci lu yaatoo yaatu yaatu ci diggante Sofha 49 50 ñaari page yooyu. léegi nag na ba jox ba ànd euh, ñu bari ci réew mi ñu dem Saalum ngir euh, taxawal jihaad yu màgg yooye taxaw ci lislaam ba xam nga noonu la def ba fam fam daanoo ca somb ca 1867 waaye. Euh, ñaare gaa yu baax yooyu buñ doon ànd ak buur di xeexit daaw ñu nangoo dëkk ak moom ci benn dëkk moo waral euh, Mamor sëñ Mamor Anta Sali dëkkoon ca Pataar mooy bi nga xam ne euh, moom moom Maba Jaxu Ba daanu na dafa dem moom Mamor Anta Sali Pataar ca Kajoor waaw ca wetu kër Amad Yàlla gannaaw bi nag ci la fa jugee jëm Mbàkke Kajoor ca côté Cilma Xambaakol mu am fa ab diir ngir di jàngale ak di ubbi nit ñi ba ndeysaan fa la génne àdduna ca mille trois cent am na ñu ne mille mille am na ñu ne sax euh, mille huit cent quatre vingt et un xam nga wuute da ci am am na ñu ne mille cent am ñu ne mille cent quatre vingt dix xam ne mooy tolloog mille huit cent quatre vingt deux wala mille huit cent quatre vingt et un ko denc foofee ci deqale ki ko jiitoon mooy Serigne Taïba Ndoumbe Marsilla waaye bu ñu seetloo it Cheikh Mahamad Bachir nettal na ci nettali na ci eh, loolu lu yaatu waxee ne eh, wa qad raaytu anna cheikhana radiallahu anhu wulida muuminan fa kaana awalu dalaili imaanihi xubbuhu li ahlil xayr nee na ko yàlla bindee moom yàlla da koo bindaale moom comme ni ko bu séeri waxee woon ci téere ba eh, nu ko wax ci di wax alayhi alifan nuska wal ibaadata wal xal wa tatiflan wa hakada nujabaa alayhi sa salaam dafa ganewaale jamono ak bëgg yàlla ak jaamu yàlla muy fitra ci moom xam na na ko yàlla bindee waaye nee na wax hakatan nu jobaaw tànn fi yëpp it dañuy gane jamono rek daal di seen cër daal di sawar jaamu yàlla moo tax sax ñu naan bi ñuy wax liggéeyum ndey añub doom ñu ne liggéeyum dëgg mooy koo xam ne saa su sa saa su ne say cër day sawar si jaamu yàlla sa cër di tayal ci mooy yàlla ok loolu muy dëgg-dëgg liggéeyum ndey waaye suñ tubaa nag teeloon a mokkal alquran lool teeloon koo rafetle waaye nangu woon a jàng it nga xam ne sax moom daan na wax ne ku ma bokkaloon di jàng bu ñu maasee ci e, bëggam njàng ak sawar jàng man li may wuuteeg yow mooy man lu ma jàng dama koy jëfee mama Cheikh Bamba radiyallahu anhu suñu xoolee Mouhamadou Lamine Diop Dagana it wax na ca lu yaatu ndax mu ngi nettali mm, gannaaw bi way génne àdduna ni suñ tubaa takkee woon ndiggam not boppam ci di jàng lool ak mën a mokkal nag waaye nag dima mën a wiiral ak mokkalam ndax euh, bu ñu xoolee lu bari ci lum jàng ci ak njàmbaar na ko jàngee boo xoolee ci annubdatul mubaraka ci safha 10 bi ak 11 bi nee na a kaana acheikh al mutarjam anhu min jumlati man baxee min ayaali walidihi fi lqotre assaalumi yaqra'u ala ammihi ibnu xaalati walidihi al madkur gis nga ko kon nga xam ne euh, jàngoon na ci euh, borom xam-xam yi nga xam ne yëpp ña nga ña ca ca ca région Saloum boobu gannaaw bi ko njëkkee ci ay bokkam euh, ba noppi dem ci ñu bare bari jàng fa waaye euh, gis nga ko nee na yàggu fa lool moom Sëriñ Tuubaa ndax dafa fekk daanaka euh, al mujahid nga xam ne Sëriñ Tuubaa ak nekk moom ci Poroxaan boo xoolee bi nekkoon ci bi mu nekkee ci al imaam al Busuubi imaam Busuubi ba fa bàyyi ko ñëw ko te ñoora ànd ak élève yooyu te Cheikh Ahmadou Bamba bokkoon ci xam fekk na fa woy juróom xam ne mooy Muhammad ibnu Habiballah waaye fekk na fa it Sàmba Tukulóor xam ne ibnu xaalati abihi doomu tàntay woy juróom la woon sëñ moom nag nekkoon góor gu baax nekkoon góor gu yiw nekkoon góor gu jàmbaar ci wàllu xam-xam nekkoon it ci euh, kenoy tariqatul qadiriya boobu nag suñ tubaa ci am njàng la nekkoon moo tax euh, jàngaloon na ko moom suñu sàmb moomu lu baree bari ci wàllu xam-xam lu mel ni risaala ak ci ci nga xam ne wàllu feqilu risaala tu ñaabi zéri al xayrawaani bi ñëpp xam euh, am nañu ne jàng na ko umul barahin nga xam ne mooy mooy ba as-Sanusi nga xam ne ci wàllu aqida lay jàng am nañu ne na ko it euh, lu jëm ci wàllu naxaw waaye ci digg boobu Cheikh Ahmad Bamba Euh, farloo na lool ci njàngam maanaam ba màngoon na ci lu baree bari ndax euh, boobu yitteem yëpp euh, da ko jëmale woon ci jàng ak xam-xam moo tax mu gaawoon dégg lool nga xam ne lii nga xam ne moom la mm, ñaare nit di yittewoo ci yenn at ba soppee ci yitte àdduna ak mm, yëpp yàlla da ko ci dimbale woon bi nga xam ne nag Maba Jaxu Ba mm, daanu na gannaaw bi songee fële ci siin ah ci lañ nag daal di Euh, ci lañ ci lañ nag daal di poroxaan nag tabaarakallaahu fa la soxna jaara tëdd xam ne tabaarakallaahu wax nañ na sax euh, comme niñ ko xamee moom 33 ans la dund 33 ans la dund ndax 1833 ak 1866 Mouhamadou Lamine Diop Dagana mu ngi nekk ci Irwaawu Nadim nee na amma ummuhu fa hiya fii fii poroxaan fil xotre assalumi tuufiyat sammata ayyaama walidihi hunaaka ndeysaan euh, bàkk boobu nga xam ne mooy poroxaan euh, nee na fa lañ suturaal jëmmam ja ndax ñetti at rek lafa fa def id qiila salaasa sanawaat wa qiila aqal wa qiila aktar waaye li gën a siiw daal mooy ba fa ñëwee ñetti at la fa liggéey euh, bëri na xissa yu ñu nett yoo xam ne fo foofa la xewee moo tax ndeysaan nga dégg Ehm, waykat yi di ko di ko di ko di ko di ko saabal sëñ xaban fadl fa akrim bi hada turbi azam azim bi nuuriha dafinatuha turjal muna inda baabiha nee na yéemal suuf si yéemal ak leeram nga xam ne kañ fa suturaal denc ko fa tabarakallahu mébét yëpp ci buntam lañ ko yaakaare ñëpp yaakaar nañ ne ku fa dem saajo fajo sëriñ aafiya bu su ne ida zurtahal aadaaba wala sudoqa falta zim te nan la xayra li zawrin yazuruha nee na boo ziyaare ji barabu soxna jaara ba nee na ngelawaay na nga takkaayoo na nga ngàndaayoo nga yóbbuloo ay teggin ak yéene ju dëgg ju set su ko defee lépp lu fa bëgg di nga ko am macha allah borom xam lu yaatoo yaatoo waaye bu ñu seetloo moom soxna jaara moom kon loolu leen la ci cosaanal Poroxaan waaye moom soxna jaar moom nga xam ne euh, ku tedd cosaan la ndax mi ngi sëtoo ci Fatimatu bintu Rasulullah di ab sërif piir euh, woy juróom moo doon soxna Aïchatu Waalo Mbàkke nekkoon ab jaamkat bu yàlla bu ñëpp xam soxna Asta Waalo mii daa yoroon daara di jàngale nga xam ne boo ñëwaan fekk ci daara ji doo ko doo ko xàmmee ak góor ndax jàllaa bi daan sol coono bu góor di daj ci daara mu def du daj ku guddoon fan la kaar kaar ndax dund na wax nañ ne cent trente huit ans waaye it moom daan def euh, guddi gu jot juróom-ñetti rakkaan la doon naafil alxuraan te loolu def na ko diirub téeméeri at ak ñett ndax ba muy am ay fanweeri at ci la tàmbali loolu euh, nga xam ne def na ko cent huit ans yoo xam ne guddi gu jot day naafile alxuraan ci juróom-ñetti rakk noonu la ko dundee ba ba wàccab liggéey moo tax maam astawaalo ndey soxna jaara su dul ko nag moom kenn du sampi daara loolu la ko bërëm bayit ba waxoon waaye euh, moom soxna Asta Walo it euh, nekkoon koo xam ne ku yaroon doomam ji soxna jaara moo tax moom soxna jaara buñ bu borom xam-xam di nekk li ak ganam jamono ak sosom dañ naan mbusoo bi la nekk fële ci jolof waaye nag comme ni nga ko xamee ci cosaan ñu ngi bàyyi ko fuuta tooro moom nag mu yaroo ci bii a ah muy environnement boo xam ne jàng ak jàngale rek lan xam jàng ak jàngale lañ xam nga xam ne ci diggante sëriñ ma buso ak diggante sëriñ Bousso bi ak diggante tafsir Mbàkke Ndumbe ñoo nga xam ne ñooy ay bokkam yu ko sës ca la yaroo ca la jàng lépp lu jàng te teeloon na mokkal wax nañ ne laataa mi muy am fukki at mokkal na alxuraan bind na ko te xoolu ko waaw bind na ko te xoolu Euh, ba ba ba tafsir na sax moom moom moom moom moom soxna jaar daal di jàng xam-xamu diin yëpp tawxiid fiq tasawuf yooyu yëpp nga xam ne ay ngàndaay la mu teel koo xam moo tax dañuy wax ne euh, la ko alxuraan sax moo ko wax euh, gàncax gu baax ci tool bu baax lañ ko yaakaar moo tax gis nga ko moom soxna jaar mii kiñ ko jox mooy Mamour Anta Sali moom nga xam ne moom moom Mamour Anta Sali ak ñoom soxna jaar yëpp soxna euh, sëñ maaram mooy seen maam sëñ maaram mooy seen moo tax loolu mag ñi dañ ko daan dañ ko daan dañ ko daan dañ ko daan tàmm lool mooy koo xam ne dangay jël sa bokk ndax dañuy wax ne ku jël sa bopp ku jël sa bokk jur sa bopp waaye nag moom it nekkoon koo xam ne li mu am lépp moom soxna jaar da koo liggéey ndax dafa teel a engagé wu dafa teel a engagé wu ndax bi muy jaayante euh, ca comme ni ni ñuy wax ci jamono waral biñ ko muuree teg ko jéng ko ba noppi mu laaj kaamil ñu jox ko mu ne day ndeysaan ubbi kaamil ba xool gis alquran fa mu wax ne maakaana muhammadun aba ahadin min rijaalikum walakin rasulallahi wa xaatima nabiin mu ne aaya jii de moo tax mënu maa engagé na danaa fa góorgóorlu sellal ba jur fa waaye danaa fa góorgóorlu sellal ba jur fa koo xam ne ku ko gis danga ko gis danga ko danga ko nawloo danga ñee waaye gis ngeen loolu xam ngeen ne jaayante gum liggéeyu la waaye nag rafetoon jikko lool ndax dafa am yoo xam ne koo bëgg ah fa nag nga nga teel a xeex ak sa jikko ndax ku mënoon a jaamu yàlla ndax alxuraan mu ngi mu ngi mu ngi tagg jaamu ko yaayu yooyu jigéen ñi wa man yaqnut min kunna lillahi wa rasulihi wa taamal solihan nuutiha ajraha marratayn wa aatadna laha rizqan kariman soxna jaara teel na teg bëtam ci ñii nga xam ne daan bëccëg muy liggéey guddi muy naafile di liggéeyal borom këram ba gis ngeen xista yu bari yu ñett yoo xam ne mënoon na ko ci bañ fekk ndax bu ko fekkutoon tamit waaye nag ak njàmbaarteem ak bëggam lu baax ak jaayante jox léppam ndax bu ñu seetloo soxna Xadija dafa waxoon alayhi salaatu salaam bi mu ko dencee ne ko nabi mu ne ko ah mu ne ko ma ëpp xaalis ci màkk mu ne ko waaw mu ko yaa ñàkk ci màkk daanaka mu ne ko waaw mu ne ko nag bëgguma bëgguma ñu moom ma may moomaat comme fu mu ne nii yaay sama kilifa yaa ma moom bëgguma nga moom ma manaan maa moom lii léegi dama bëgg nga boole maak li ma moom man moom ay loolu bu doon guddi yi loolu kenn <laughs> loolu moom góor gu ko fi yaakaar it boo xam ne moom tubaarkal tubaarkal waaye mag ñi noonu lañ daan def ndax soxna jaara buñ déggee nga am na bis mu mu jël mu jël mu jël simmañ di xar gaalam ndekete day bëgg a tàngal kafe bégal sëriñam xam nga ne loolu gaal fu mu ne nii daanaka mën nañu wax moo gën a foor armoire ndax boo ci jamono yooyu gaal kenn xamutoon valeur bi mu amoon waaye loolu noonu la demee ak sa ndigal liñ ko santoon ci téel sàkket wa suñ Maamor Anta Sali xiin wa sàqi mu fàtte ko dem dugg ci biir ba fayal jot mu génn di yeeslu ngir dem ci jàkka ja gis lu yëngu wala lu niroog nit ku taxaw mu ne kooka la mu ne ko soxna jaara mu ne ko looy def foofu mu ne ko yaa ma noon jàppal te néew nga ko maanaam mu wax ko ca kàddu yam ko ci wax nga xam daanaka mën nañoo xam ne lu mu am tey ci jëf yu rëy yooyu mu daan def ak jël caqub nga xam ne ba muy ba muy dem kër moom lañ ko booleek muy lu am valeur mu di ko jël di ko joxe ngir ñu di ko jox xéwal muy indil borom këram ak jëf yu baree bari yoo xam ne ku bëgg lu baax nag loolu mën cee ñàkk ndax fa ndox daan taa ba tey soo dem fekk fa tepp tepp ndox waaye nag mënoon a jaamu yàlla lool ndax euh, mënoo di topp mënoo mënoo di liggéeyal sa borom di sàgganee yàlla ndax yàlla leen boole yéen ñëpp ay jaam yàlla ngeen kon da ngeen di jaamu yàlla ci seen diggante ak seen ànd boobu moo tax soxna jaara boole woon euh, jaamu yàlla lool ndax Sëñ Tuubaa boo xoolee ba muy dénk soxna Penda Joob wax na ko wax na ko ne euh, fi koy waxee naan ko zawjika taqi taqi dil ala xaw ma nu mu ko fàtt naa ba teewul ci sama waaye mm, bul jaamu yàlla te topp sa borom kër waaye bul topp sa borom kër te jaamu yàlla waaye borom kër ba ñuy wax nga topp ko nag mooy ba ragal yàlla bi nga xam ne yàlla santaan rek loolu loolu digal kon soxna jaar ci waaye nag tabi woon lool ta lewet nag ndax loolu euh, joxe nañ ci misaal yu bari ndax soxna jaara ñim ndax Mamadou Ansel dafa yoroon daaru ju mag soxna jaara nag dégg nga sax wala farkat yi di ko wax bu soxna soxna jaara bu ayee dong yëpp ay rakkaaju euh, ngir ngir nim tabe woon ak nim lewete ak nim bëggee woon lu baax ndax euh, jigéen it bu yaatoo te mën a joxe ñam te neex deret ñi nekk ci kër gi ñëpp dañ koy jublu nekk kër ñëpp dañ koy jublu moo waraloon soxna jaara mm, bu ayewaan rek dongay Mamadou Anta Sylla ak lu ñuy bare bari kaar kaar dañuy bég ndax dañuy xam ne tey yëf yi dina neex waaye tey tey gone yi ña ngeen ni danañ bég te dana bari loolu soxna jaara gañewoon na ko foofa waaye it mënoon a muñ li jafe li ñuy jafe ñun ñëpp génération bi nga xam daanaka moo moo tax mënu am tam daanaka waaw as-sabru kashibri murrun fi madaqatihi lakin awaqibuhu ahla min al waaw muñ dafa mel ne xettal boo ci tollee bu ñu la koy wax da nga naan lii daanaka kenn mënu ko waaye nag boo dee ba ci cëppaandaw la <laughs> mooy dàqalem tawarkal mooy dàqalem eh, waaye nag ku amoon kersa te ragaloon yàlla tabarkàlla lu jafe ngi nii waaw ndax eh, jigéen ñu am kersa daanaka du wax yenn kàddu yi du tontu wante du nangam waaw rawat na mën a muñ googu ma doon wax ci gannaaw ndax fa nga gis koo xam ne day jàpp na moom yow moroomam nga waaw yow ki moom cinquante cinquante rek yow boo man moom la sax boo waxee mu tontu la boo bañee ku bul wax allahu akbar waaw xam ne kàddu yooyu au lieu que ñu ñu ñu ñu nangu daal nooy daal daal daal di jéem a xam ne lii yàlla lañ ci liggéey ndax alayhi salaatu salaam faveur bi mu jox jigéen jigéen rek la ko jox ndax bi mu wax naan ida solatil maratu xamsaha wa saamat shahraha wa xawat farjaha wa ataat zawjaha daxalal jannata min ay baab incha allah aw kama qaala fi hadis jigéen yii bu ko defee ak ñanaam taxaw ci kanam julli julli juróom ca nañ koo sante woor weeru koor ca ba ko waree euh, wattu pëyam topp borom këram ah aljana daal taxaw ci kanam kon loolu jigéen rek ko am kon avantage boobu jigéen am na ko waaye nag suñ jigéen ñi tabarka ñu ci gën a bari bari ko ndax dañuy jàpp ne ñoom euh, boo waa ji defee daal ñu def boo waa ji deful duñ duñ duñ def tabarkallah waaye euh, soxna jaara da moom it ku moytu yu bare bare yu jigéen ñi mënul mooy yii di xew ci diggante jigéen ñi ak ñi bokkal borom kër wala ni ñuy wax yu ju peccogoo gi demee noonu ay xuloo gi demee noonu soxna jaar loolu lu mënoon a dawal léeg-léeg sax daan na jël ay xéewal di ko jox jigéen wala mu jox ko borom këram ne ko diwa la ko jox fekk moom moo ko jox waaye lépp rek ngir dara taxal diggante yi xam nga kuy jël say malaan wala say xéewal di ko jox sa bërëm kër naan ko sa soxna diwa la ko jox kooka xam nga ne du fa nekk naan ko comme jox nga diwkaay jox ma <laughs> waaw comme jox nga diwkaay jox ma ak yu bare bare waaye lii ak tënk loon ci bis bu mag yi ñu barkeloo ko asalaamaaleykum